moom li dem bu leen ña xareerul borom ani waa ani waa kaw ani waa kër ani waa kër ani waa ani Samba ala gesuwanala nyinga baikarda nyoni ho siyo Samba ala gesuwanala nyinga baikarda nyoni ho siyo Aniwa kergi aniwa aniwa kergi aniwa kergi aniwa kergi ani waa ani nañu leen fii ñu ñëw nag tey jii soriñu sànjara ñu ngi caajaay lii waral loolu nag dafa am benn soxna soo xam ne jàmbaar tigi la ñu di ko wax Thérèse Maye Diouf di madame Ba moom fonctionnaire international bàyyi liggéey booba yi nga xam ne moom la doon def ak teraanga ya fa nekk yépp mu ne day dellusiwaat siwaat cim réewam loolu nag ku ko dégg ak ku ñëw ba fii dinga xam ne ki def lii xalaatam rafet na ki def lii bëgg na lool am réewam kon nag suñu xarit yi nañu dugg ci biir tool yi nañu dugg ci waxtaan woo xam ne soxna Marie Thérèse Thérèse Maye Diouf dinañu leeral loolu lépp li tax mu bàyyi bitim réew li tax mu dellu siwaat kon fii ci euh, Sénégal te kat da xam ne ku ne fonctionnaire international nga am ay lijaasa yu mag a mag a mag a mag nga bàyyi fa loolu yëpp salaire baag euh, ya ca topp ak yëpp ne dangay ñibbisi ñëw ci sam réew liggéeyal sam réew loolu ah buñ ko ñu bari royandey li ñuy wax nak développement tigi te président de la république loolu ñor ko lool kon dina nek lu gaaw lu yomb te am nañ ci yaakaar kon nak ñu dugg ci biir waxtaan wi. bala ñoo door nag suñu waxtaan wu am solo wi nga xam ne moom la ñu bëgg a def ak yéen dinañ félicité bu baax les lions gaynde yi ndax def di ñaan rek ah ndam yi gën a ñëw. Samba ala gesuwanan nyinga bayi kongo nyongi honsiyo samba ala samba ala samba ala samba ala samba ala samba ala Samba Anna, Samba Anna. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyu woon nañ leen sànq mais li may njëkk a laaj soxna si ñu taxawal mu di madame Ba di Thérèse Maye Diouf Thérèse yow bëgg nga sport. <laughs> waaw bëgg naa sport de waaye nag du ma ne jàmbaar laa ci lool gaynde yi lo wax. yi gaynde kay yuxu ba baat bi dee. ma leen doon waaj a ay légumes ak ay affaire sax. comme ça ñu yokk noos bi. vraiment di leen ja di leen encouragé waat bu baax a baax. Aline Cissé xam nga sama génération la moo doon sama footballeur préféré moo ak sama beneen lion bi coli Coly waaw nga xam ne dañoo bokk passion bi léegi tasewaat mu ngoog tasewaat ci mbirum agriculture agriculture donc vraiment di leen euh, encourager bu baax a baax di wax xale yi ñu xool ci ñoom xam ne quel soit Euh, li ñu tànn moom la ñuy def rek nañ ci boole fula jom ak jiital sa réew. dëgg la jiital sa réew <laughs> loolu nga wax lu am solo nañ xippi seen i gët. Mhm. xool bu baax a baax yow miit nag mhm. nañu xippi bokk yi ñuy seetaan mhm. te déglu la bu baax a baax <laughs> madame euh, fi nga jaar tuuti laa ci bëgg a xam bala maa sori ci laaj yi. waaw man de fi ma jaar moom sama réew laay njëkkee parce que fii laa jàngee. lu ma am ak lu ma xam école Sénégal enseignant Sénégal yi ñoo def ci man sama baye nekkoon enseignant baye ma ci école publique waaw bu moromam di dugg privé sax daf ma baye publique mhm. donc ma ñefe ba eggali université Gaston Berger bu Saint-Louis bokkon ci 3e promotion bi doon def anglais foofu ma fa joggé spécialisé wu li ñuy wax sociolinguistique ma fa joggé la dem dal di liggéey ci instance internationale la am chance liggéey fofu njëkkee muy IRD institut de recherche nek ci recherche bi ba dem binduwaat université Dakar di def ben formation en maîtrise bu ñu tuddé population développement et santé de la reproduction yokkaat xam-xam yokkaat xam-xam di jang di fay dal di postuler waat aussi amaat bourse dem Ghana jàngiwaat donc def santé publique après commencé di liguey encore ci institution internationale di yek di yek di dem jaar naa Nations Unies jaar naa yeneen organisme yo xam 25 pays la doon couvrir bo Asie Afrique ak Amérique latine jamono nak ñu ma ñibbisi ndax commencé njabot aussi am nga yor ay xale yu ndaw nekkoon Asie nekkoon Bangladesh fala mujjé ci Asie je suis ak sama borom kër di ci gërëmaale aussi parce que moom bu ci jàppaloon du sotti euh, poste de responsabilité fii ba ci kii bi daal ma di delloowaat gannaaw daal xaaral ma def li nga aussi dafa nekk loo xam dama ko bëgg mu sama xol def aussi peut-être exemple aussi daal di liggéey suuf dellu ci suuf bi nga xam ne moom dafa nekk loo xam ne dama ko bëgg mu am njariñ woon xale yi woon mag ñi woon ñi nekk ci biti ragal la ñëw aussi qu'il possible mhm. da def dara Sénégal loo xam ne dina la jëriñ jëriñ askan wi da mhm. nga am ci peut-être loo xam ne dina la neex sa xol mhm. loo xam ne du daw gi daw gi fépp liñ ma naan da ngay tax ñëpp danga bëgg ñëpp jóge fi ñu nekk mukk <laughs> déedéet waaye ñëpp aussi mënuñu def lépp waaw mais may fit ñi nga xam ne aussi xëy na bëgg nañ def li may def te ñu ngi doon jeexi jaaxa out. Budramigan na gagi sama anda Yomigan na rew mi sama anda Budramigan na sang bờ an ghe xuống bờ nơn nhìn ghe bay không góc nhớ nghi hồn siêu sang bờ an ghe xuống bờ nơn nhìn ghe bay không góc nhớ nghi hồn siêu sang bờ an sang bờ an sang bờ an kon nag mbokk yi ma bëgg xam naa ne yéen a ngi ànd ak man ci ay laaj yoo xam ne doon ngeen ko ko laaj mm-hmm. madame Ba liggéey bi nga def fi nga jaar njàng mi xam-xam bi macha allah ñu dem nag ba jamono joo xam ne danga ne lii lépp dama ko fi naan ñukk dem ca tool ya lu waral loolu. ah li waral loolu moom defe naa ne xëy léegi mën naa ne yomb na waaye leerewuloon noonu da ngay dem ba jamono yoo xam ne sa jàmm yaram sa jàmm xel li naan santé mentale waaw léegi léegi da ngay nekk ci liggéey bi di daw di daw di daw. léeg-léeg boo xëyee pour liggéeyi sax estomac bi day mel ni dañ koo fas léeg-léeg nga ne lu ko fi jar waaw lu ko fi jar nag ay occasion rate yu bari yoo xam ne peut-être sentimentalement yu bari mm. yoo xam ne waroon nga fekke fekke woo waroon nga teew teewoo eh, sa njaboot aussi yor bi mu nga xam ne doy des na sa borom kër aussi di muñ nga dem ba ne est-ce yi du gàtt xel mm. waaw xam nga mag la du xale waaw euh, xale itam di ay xale donc un moment nga xam ne sacrifice yi peut-être yow mën nga ko nangul sa bopp mais di sacrifier sa famille nga ne est-ce que jar na ko yëpp est-ce que jar na ko am ay rakk yoo xam ne ay ndaw lañ aussi maire yi naa ñibbi nga daal di ñibbisi nga daal di ñibbisi mais madame bi ngay bëgg a euh, mhm. nga ubbi bulletin de salaire bi mhm. nga ne lii nii mu toll fi laa koy baax lépp loo xam ne ay teraanga la fi laa koy baax mhm. daal di ne maa ngi dem ca suuf sa mhm. mais ndax loolu wóoroon na. ah loolu kay wóorul moom li ñu naan jël risque la rek waaye risque bu fekkee na nga ko bëgg te yaa ko risquer sa bopp parce que liggéey bi aussi risque la de léeg-léeg nga xëy ñu ne la ay ca tëj na léeg-léeg nga xëy ñu ne la soxlaatuñu la. léegi-léegi ngay donc risque moom ay gëm yàlla ngay jiital ak def li nga bëgg li nga mhm. xam ne en temps sa biir xol mhm. moom doy na la waaw loolu la wax dëgg yàlla boo xoolee teraanga yeeg xool yooyu dafa am dina la jaral lu ne waaye da ngay def mm, la choix nga peese nga jël balance bi nga teg nga peese mhm. man teraanga yeeg salaire bu bari beeg waaye coono ya ma ci am ñàkk nelaw yi ma ci am est-ce que jar na ko nga teg nga ne ah man yeew gi sama doom yi ñu nekk ñu ndaw nga gis sama jëkkër maire bi feebar ñu woo la nga taal sa oto 30 minutes nga àgg ah, euh, toog ñaari ñetti xale yoo xam ne ci yow la ñu yaakaar nga xam ne ñii bu weer bi dee nga fay leen yor nañ ci kër yor nañ ci jabar yor nañ ci doom yor nañ ci famille nga peese nga ne fan laa ëpp njariñ <laughs> est-ce que damay toog fële salaire bi xëy na maa ngi am njariñ mais njariñ bi c'est dilué mm-hmm. waaw njariñ njariñ global la dangay ngay mm-hmm. participer ci njariñ boobu ak njariñ bi nga xam ne fii da nga koy da koy laal da koy laal nga xam ne lii kat contribuer naa ci directement ah. ñii bu ma leen joxee xëy na man aw ma salaire waaye maa ngi fay ay salaire eh, su ma leen joxee salaire bi am na njëriñ bu mu leen amee léeg-léeg ñu former leen mm-hmm. wut de jeune comme agronome bi nekk mm-hmm. fii mu lay mm-hmm. formeel xale yi moom tam muy former waale am na njëriñ ah, nga toog xale yi yóbbu école mère indigne lañ ma tuddee woon ma tuddee ko sama bopp ndax école yi duñ ma xam <laughs> waaw léegi nag euh, ñu jeexal ci fànn boobu. Euh, bi nga ki nga njëkk a waxtaanal ci instance yooyu nga doon liggéeyee. Mhm. bi nga ko ne damay ñibbi. Mhm. moom lu mu def ci boppam. en fait bi may njëkk a ñibbi. boobu mhm. maa ngi nekk Bangladesh. yàlla xam na ne euh, boo xam nu ñu koy conseil d' administration bi ma vingt cinq ministres dëkk yi ma doon liggéeyal ñoo fa ne dañoo bind lettre daal ne directeur bi lu tax mu nangu signe sama lettre de démission. parce que ñoom waxoon naa leen ci benn conseil d'administration ne damay dem. Mhm. ñu ne ma muñul ñu. muñul ñu ma muñ at. beneen conseil d'administration ñëw ma waxaat leen ko ñu ne ma muñul ñu. te foofu yëpp ñu ngay yokkaat salaire yaak ñoom léegi mu ngoog ba ba conseil ba jeexee dem rek ma bind ma ne ñibbi. ba directeur bu bees moo ñëw mu daal di signé dañ koo bind lettre lettre bi mu ngi ma yor ñu ne ko lu tax nga wax ko mu dem nga bàyyi ko mu dem parce que ñun dañoo négocier pour ñu toog. pour ñu toog voilà donc ay affaires yu bari tax ma ne naa ñibbi. naa ñibbi Sénégal ma ñibbi si Sénégal toog lu mot euh, at mu metti nag parce que dama ñibbi si toog mm-hmm. sama jëkkër nekkoon Cameroun moom tam yor fa mm-hmm. ay teraangaam ak ak yëpp nekk fa directeur projet international ak yëpp moom tam ma war a dem Cameroun fekk ko fa ak xale yi moom tam mu daal di toog ñu daal di añ suñu suppu kànja bu neex toog ba ci kanam mu ne ma xam nga lan la mu ne ma ne ma dew ma fenn mu ne ma nañu toog Sénégal fii lu ñuy daw. ma def kaf mu def dëgg. ñu toog. ñu ah, toog ñun ñaa ñëpp ñu toog ak njaboot gi mu métti nag parce que boo toogee toog boo xam ne waajoo ko euh, ñu toog ay 6 mois 1 an ñu woowaat ma ma dem ma dem ne naa jéemiwaat. nga ma demaat continuaat liggéey liggéey liggéey ba liggéey ba nga xam ne da ngay dem ba liggéey bi da nga ko bëgg doo dootoo dootoo yëg leneen lu dul liggéey bi dootoo yëg doo da ngay fàtte sax ne yaay nga dangay fàtte ne soxna nga dangay ngay fàtte lépp yaa ngi joxewu à 1000 pour cent ci liggéey bi mais boo xoolee sacrifice yi ngay def pour sa liggéey. nga xool aussi des fois traitement yi ñu lay traité ñu nekk ci kaw ah, tu te dis est-ce que jar na ko un moment tiraillement yi fii ma ne man daal banaa parce que man foo am xëccoo rek damay retiré wu ma daal ne naa dem mm-hmm. toogal nañ la joxaat lii sama organisme ñi ma recruté lu ne def nañ ko pour tiye ma mm-hmm. ma ne damay dem noonu nga demee noonu laa demee bii paa nag ma ne dem bii moom nekkatul ay dem maa ngi dem maa ngi xalaat bii paa dem la toog def ah. li ma bëgg parce que bu ma demaatee dinaa ñëwaat. di nga ñëwaat <laughs> kon nag nga ñëw <laughs> ma ñëw rek. <laughs> léegi nak waaw lu lay indi fi fi ñu nek ni ci caajaay ji euh, caajaay mom liñ nane goudé fanaan ndax hmm. man diggante fatik fa laa nekk ba amay fa entrée en 6e à l'époque sama papa ñu affecté ko Thiès lycée Malick Sy mu yóbbu fa laa ne ba amé fa bac Malick Sy am dem université Gaston Berger

c'est difficile nag wax su waxu pap heure bu ko waxee mu mel ni tey parce que dama diggante bi dafa xatoon mm. waaw léegi nag ma ne caajaay maa ko amee lii xëy na sax xalaatuma woon ay tool ak yooyu mais xalaatoon naa lu mu métti métti ma am dara loo xam ne truc de développement boo xam naa ko def pour delloo njukkal caajaay pour delloo njukkal suufu caajaay yi nga xam ne tey moom moo yér sama pap tey su ma bëggee seet sama papa fii laa koy seetee Thiar Ndiaye Saly laa dëkk dëgg la am naa tool Saly li may def fii mënoon naa ko def foofu mais j'ai tenu à domicilier sama entreprise Thiar Ndiaye pour wax jërëjëf mhm. Thiar ci boppam jërëjëf suuf si xool aussi naka laay defee li nga xam ne dina neex suuf si naka laa koy suuxalaatee parce que suñu suuf si wax dëgg yàlla engrais yooyu ñu ngi koy sonal naka laay def man contribuer ba mhm. suufu Thiar bi naat xale yu caajaay fami famille caajaay dëkk waa dëkk caajaay yëpp mun ci euh, gis seen bopp. ku la daggal suuf yi. ah suuf si moom dama ko jënd. ah jënd. dama jënd dama jënd dama doon te yàlla xam na ne yàlla tudd rek. Mhm. ndax fële ci kaw laa amoon benn as lopin su ndaw. benn góor gu nekk ci yoon bi moo ma ne xam nga dafay métti ci ñoom du ñu mën a exploiter suuf si. dëgg la dañu commencé di jaay di jaay après mu ne ma. man de xam naa ne am nga tool fii depuis nga nekk euh, xale. Mhm. waaye am naa bu may jaay fii man ne man jënduma boobu maa ngi ci affaire dama doon waaj dem sax mission. waaw après mujj gi ci jàppal bàyyil ba ma ne ko waa d'accord ci laa wut suuf si ma daal di ko clôturer ma ne bon on va voir ce qu'on va faire comme dama amoon projet ONG li ma mooy li ma doon wax ci début bi. ma ne bon nañ xool naka la ñuy defee ONG fii pour xale yu jigéen ñi pour et cetera mais comme dafa nekkoon superficie boo xam dañ ko jënd amul. benn garab boo xam ne mu ngi taxawaalu. mu doon ñaata hectare mu di nekk juróomi hectare yoo xam ne hmm. tali bi moo ko xaaj. ma daal ne nañu au moins euh, reboiser ba pare lu ñuy def après ñu xalaat ko mais jamono yooyu ma daal di jënd wër ci ose et forêt yi wër ci pépinière yi jënd ay lu ay deux mille deux mille cinq cent plants ñu euh, collaborer ak waa eaux et forêt ñu ñëw jàppale ma ñu aligner hmm. daal di xool naka la ñuy defaatee fii ba mu xaw a nekk un poumon vert. loolu moo doon bëbët bu njëkk bi nga dal di ñak dang ko ñak nak dama ko ñak ah bo ñagul du soti waaw ruur mi waaw ruur mi ñak be ñëk ñak be ñëk amna na ba parti bo xam ñaguma ko parce que comme be yaangi ngi yoyu dañ fay tàmmal nañ lañ ko bayil en attendant mhm. donc ñak ba mu ki wut ndox lu ñëkkon moy ñagal wutal ndox sampal ay garab loolu lepp nga def ko loolu lépp loolu lepp ma def ko ndox mi doyna ah ndox mi mom doyul lool mhm. waron na gëna doy nak ndax bal ñuy ñak rek mhm. lañu wo fay pour def forage mhm. waaye Sénégal li ñuy wax rek da ngay da ngay gas gars yi di suul waaw <laughs> waa ji jël na xaalis ba gasul forage bi donc ñu obligé gas ay teen ñu ngi feek ñeenti teen donc pour mën a sauver li ñu mën a sauver ci ay garab wàññi superficie bi nga xam ne ci lañ naroon liggéey mhm. di xaar yàlla ñëw ba ñu mën a defaat forage boo xam ne xëy na ñu taseeg nit ku jub. defal ñu forage bu bu baax. nga dëgër bopp rek. ñu taal tool dëgër bopp rek dëgër bopp rek barki dem sama benn cousin neen dafa toog ci benn langue ñu naan ñooñu di wax xamuñu ne sax dafa bokk ak man naan ko soxna sii ku dëgër bopp la eh. kii foogo naan ne daw bu yàgg waaw mais maa ngi toog rek daal nañ fi mm-hmm. jël samay bagage jël nañ fi sama pompe forage jël nañ fi samay groupe électrogène eh, ma ne dara duñ li ma tax a jóg moo gën a rëy seen ay yu sew yi ñuy def waaw loolu ñu jël lu tax ñu jël ko dañ ah, ko dañ ko toxal dañ ko sàcc rek dañ toxal noonu daal toxal leen ko lebalu mm-hmm. abalu leen moom kay moom kay bañ koy jël sax tàggoowuñu waaye xëy na seen xel fa la fa mais li ma wax rek naa leen maa leen gën a dëgër bopp mm. léeg-léeg tam nga jël fi ay xale yoo xam ne nga am ci ñoom yaakaar yaakaar ne di liggéey ñu dem ba ci kanam def la ñoom tam jikko waaw du ma ñëmewu ma tudd pël yi ndax fa laa dëkk léegi <laughs> waaye nga ne naa leen gën a dëgër bopp ah, rek waaw <laughs> gëm ko rek gëm ko rek gëm rek waaw mu métti nag lool mm, mais métti lu lu ne lu yomb amul lu yomb amul le eh, yomb sax a ngi ci tool bi ah yii moom dama koo bëgg dama koo bëgg xam nga séeréer bu baax <laughs> ah. day bëgg eh, yomb <laughs> waaw yore nga ko de waaye yi nga yore sax lañ la yomb bi gis naa ko mi ngi nii yomb bi kee limon la lii limon moom mu ngi ah, gàññ ci tool bi lii fruit de la passion la